asalaamaaleykum mbokki internet yi yéen a ngi seetaan seen chaîne bi di Yel TV ci seen biir émission bii nii di lima dundoo dund ne bés bu yàlla sàkk bëri na ay doomi aadama yuy dund naqar ci seen biir xool te duñ am fenn fu ñu ko jooytoo loolu waral ñu tànnal leen émission bi ngir muy seen émission tey nag ñoo ngi fii ci Mbour ci benn quartier bu tudd Falokh seet si fi suñu benn mbokk buy wuyoo ci turu Papa Dieng mu nekkoon jàmbaar fàq tëdd liggéey ñàkk jëriñu rek la la xam nekkoon tailleur bés ñëw nag ñu doon kuule juma bee tudd juma sëñ Saalu nekk fële ca garage yàlla dogal na bi ko dal fa la ko dalee woon. ba tax na ma la ñaan yow mbokk may seetaan maa ngi lay ñaan nga abone bés cloche de bi ngir bépp émission bu ma def nga mën ko seetaan ci saa si du def lenn rek lu dul dugg ci biir kër gi daal tàmbale waxtaan bi. amaan kii Pape nuyu nañ la. Ah, yaa ngi si jàmm yaa ngi si jàmm baax a baax kay waa Pape ginnaaw bi ñu la nuyoo sargal la dañ lay laaj rek eh, nattu bii la dal naka la la dalee eh. waaw ah, feebar bi de daanaka maanaam ci saasaa ni buñ teer la noonu waaye saasaa bu ñuy liggéey sa jumaa ja dañuy bàyyi dimanche dimanche rek ñu ñëw dem sa jumaa ja pour kuuraas si kuuraas boobu lañ koy kuuraas bi ñu sànnante soo yooyu noonu soo béton yi ak benn booy sànni benn soo rek mu dal sama kanam waaye boobu sax daanaka garaawalu ma ko waaye bi ñu liggéey noonu ba pare daal laa dem ko ñu ne ma la lan lan moo nuyu kanam ma doog a fàttaliku ne man siwo siwo béton bi daloon na ma ci kanam si daan dox ay ay ay di dox ay ay fan yooyu noonu bopp bi commencé métti yàggu dara ba di muur. Mhm. léegi bët yi bi mu muuroo noonu bi nga demee foofu noonu affaire yi dal la fa siwo béton bi dal la fa affaire yi di métti di néew yi est-ce que demoon nga hôpital pour xool. waaw demoon na hôpital demoon na hôpital doon nañ dem hôpital waaye dara. Mhm. léegi bi la affaire bi dalee foofu noonu ñooñu ban réaction la ñu def ñoom waa foofu noonu jumaa bi foofu biñ ko yëgee. waaw bi ko yëgee nag ñoo ba fii dawal seen oto ñëw ba fii seet sama sëñ Mbaye Diop fi nekk sëñ Saliou daanaka garab gun amoon it wax dëgg fa neexaal ñoom ñoo ko doon jënd ñun ñoo man daal ñoo dem ba diggante bi waa xamal chaque jour di chaque jour ngay taal ordonnance di joxe ñu la koy nu ñoo dem daal ba xaw a ci am kersa nu arrêté ko waaye wax dëgg fa neex sañ Mbaye Diop ba nii nii nii sax dama da yor naa numéro fan yii passé donc sax mu may mu mu mu ma yebal bustaan pour si benn waay pour ma dem mën a gis sëñ Cheikh waaye yàlla dogal ko waaye ba nii nii sax maa ngi ñu ngi déggante ñoom wax dafa neex wax nañ ci àq bu baax. léegi yow bi nga demee hôpital noonu ñoom biñ la xoolee ndax wax nañ la ne feebar bi din buñ ko opéré ba ci dina wér wala waxuñ la ne ndax dina tane wala. bëri na waxuñu ma ci opéré. waxuñu ma ci opéré. dem nañ ba daan teg waaye dañ ñëw ñoom noonu gisuñu gisuñu si woon feebar hmm. waaw ñoom ñoo feebar deret dong doon gis si bët waaye espagnol yi mujjee dem fii nii fi ñëwoon. fan lañ ñëwoon. fii hôpital Grand Mbour. bi moom ñoom bi mu ko xoolee moom bi ñu tegee appareil ba pare nee nañ infection la hmm. nee nañ infection mu ngi ci bët yi hmm, gaañu gaañu. gaañu gaañu. waaw mais ñoom waxuñ la ne mën nañ koo faj wala. mën nañ koo faj wax ñu ma dara waaye dana am infection daal mu ngi ci bët yi boobu dana ñëwoon pour ay cataracte yooyu wala opérer cataracte yooyu noonu waaye mhm. bu ñu ko xoolee daal ne infection mu ngi ci bëri moom. Mhm. loolu lañ la wax. waaw loolu wax na ma ko ci. léegi ginnaaw yow gisoon nañ ne tailleur nga woon moo nekkoon sa liggéey ci nga daan liggéey ngir jàppale sa bopp te yàlla def sa bët yi muuru defatoo defatoo dara fi mu nekk nii da toog. waaw ah, xanaa saasaa nii comme que yàlla may nañu xelu saasaa mooy comme jàmpe bi may raab. ana jàmpe bi. jàmpe bi daa waaw ñaa yii de daay raab instant yi comme que yàlla may na ma xel moom laay raab saa saa wékk ko bikin mor daam ak yooyu noonu wa ñun da dëgg fa neexaa ba ñu ñëw yelwaan sax dañ diyekk dañ koo mënul waaw saa saa wax dëgg fa neexaa mënuñu yelwaan moom waaye moom xam lii moom dinaa ci yëngu saa saa maa ngi maa ba mu ngunu lee nga gis ne sax maa ngi ci maa ngi ko maa ngi ko bëggal di def def def ci ay ginaar élevé waaye fi li ma ma amaguma doole maa ko commencé ne sax àggale moo ko bi gisoo pulaay bee nañu tabax maa commencé woon moom ngay moom nga commencé pour defar ko di ci def ay ginaar. waaw comme que comme que comme que liggéey dara di ci yëngu. pour yar ko mën a jaay. am xam am pour mën a dimbal saa ci yenn yu bari ndax dañ ko war a doon loolu dafa doon suñu rêve. yaa nekkoon sa taaw yaay. sama sama taaw yaay. mbokk yi ñu leen di rek ne moom nattu bi dal ko nii bi ko dalee woon ci jumaa ndiarem bu seigne salu bi nek fi ni ci garage wa pap hmm. malay laaj rek um, ndax bés sa xel duy daj yenn saay ngay comme ngay dem di yalwani comme sa morom yi nga xamne ni yal dal dalena tek seni beut seug ñuy dem di yalwan ngir meuna def ci sen bop ndax yow sa xel duy daj loolu. waaw sa sa sa mu sa sa mu daj ko waye comme tayit ay julit lan te jullit moom te yalwaan moom maanaam julli bu ne boo boo ñàkkee dagan na nga yalwaan te ñun ñu dagan waaye saa saa day dañuy dem ba foo xam ne dem na dem naa ba Touba dem naa ba Touba màggal gi paase waaye damaa dem daal ba man daa man bañu ma ko de ndax yàlla moom raamal ko te jullit leen te jullit moom dañuy nangu dogal waaye bañ man daa man daal wax dëgg ka neex man maa ko mënoon moom mun ma ko loo tax ma saa saa ni si njàmp yi laay yëngu nii gisoo poulailler bi maa maa maa ngi ko tabax ci ay ginaar ay lapin mu nga nee boo demee lapin yaa ngi ginaar yaa foofu ci la ko tabaxee ni nii waaye lu weer war nga mom bañ na ko wax dëgg ni xaa dañ ko mënul waaw. léegi yow jampé bi ni ñaata nga kay jaay njàmpe bi ni sa sa mara raab ko sa saa ma jaay ko 1000 francs. 1000 francs dina jaar wa jampé mom jaram dina jaar waye manam dema mom gaawul non gaawul waaw mom moom gaawul noonu. Ah, mhm. léegi boo bo ña par ñaata nga ci rap par jour. li sa man jampé jampé day jël temps nak waaw am na ñoo xam mën nañ koo rab ay ay fan waaye man moom saa saa ma ràbb ko benn jour bu yàggee ba yàgg ñaari fan. Hmm. Hmm. Ah, léegi bu jaree yow noo ciy def danga ciy faj sa soxla may ci waa kër gi defal ci yaay ji comme que yàlla. noonu nag waaw jënd ci ay xont comme que bari woon dool waaye élevé moom dañ koo bëgg. dañ koo bëgg jënd ci xont jënd ci xont ginaar yeeg lapin yeeg yooyu noonu. Mhm. waaw mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon rek yéen a ngi seen biir émission bii nii di lima ma dund tey nag ñu nekk fii nii ci Falox comme ni ma leen ko waxee woon ca commencement ba seet fi suñu mbokk bii nii di Papa Dieng ñuy ñu ñu ñu ngi sollicité ñëpp nag di ñaan ndimbal ñu dara lépp lu waay am bëgg nañ boo ñu ko joxee ñu jàppale ci suñu waa ji ndax soxla na ko képp ku ko bëgg a dimbale ak lépp loo ko mënti jox mën nga ko jaarale ci numéro boobu noonu di jaar ci suufu écran bi Pape ginnaaw bi ñu dalalee sargal ñu ñu ngi lay laaj sa kay sa wax bu mujj ci émission waaw loolu di leen sant leen gërëm yéen waa Yelli TV rek waaw di leen ñaanal fépp foo xam ne bëgg ngeen seen télé bi dem fa yal na leen ko yàlla may ci barke borom Touba. waaw ndax lii moom maanaam social bi social bi yàgg nañ mooy loolu tey amaana tey la ko yàlla dogal waaw ndax jàngoro moom amaana boo ko weeree mën naa am nga am ci am ci saafara mën naa am nga gis ku la faj wala nga gis ku la jàppale kon dinañ leen ñaan yéen waa télé lépp loo xam ne bëgg ngeen ko bépp yokkute boo xam ne bëgg ngeen ko yàlla na ngeen yokk ba yokk si barke borom Touba waaw dinañ ñaan nag gudd fan ak wér waaw leen sant bu baax.